tey dañuy gis si jamono ji ñu naan waaw jigéen dafa war a génn yéen ñi islam da leen a tënk surtout yéen ñi jéem a dund seen diine di leen muuruloo du ngeen teg ci greffage yi du ngeen du yéen daal beneen façon nit ngeen te loolu mooy teraanga ji loolu mooy teraanga ju réy ji nga xam ne moom la moom la islam teral imaginel bu njëkk wax nañ leen ci commencement waxtaan bi ne jigéen dañ ko daan futti ba mu set sorol ko lu gàtt yóbbu ko ci marché ba diko jaay islam ñoo tontul ñu mu ne loolu dootul am ñu ne ko lan mooy am mu ne yaa ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ndax lan dalika adna ay yu'rafna fala yu'zayna wa kana allah ghafuran rahima mu ne yent bi jigen dootul futteeku di génn ci bedd bi yow muhammad waxal sa soxna yi sa doom yi jigéen yi jigéenu jullit ñi nañuy muur seen yaram yi nañuy wàcc seen jàllaab yi mu ne ndax loolu moo gën a jekk si ñu xàmme leen imaginer muraay nu mu yiwee nu mu selle nu mu rafete yàlla mu ne moo gën a jekk si ñu ràññee leen ba pare kenn du leen lor falaayu zay na kenn du leen lor dama koy nettal chaque jour sama rakk bi ma àndal ànd nañ jóge gore waxtaan ñu agressé ñu nangu saagam ay xale yu góor yoo xam ne xamuñu leen ñoo dàq sàcc bi ba jàpp ko ni ko yow da ngaa dof ay ibaadu ngay agressé yow gisoo ñuy seen muraay bi iphone mu ngi ci woon mu jël iphone bi ndax te paas na ko keneen bi ñu demee police avant ñu fay jógee ci guddi gi iphone bi feeñ ma ne ko zalika àddina ay yuaraf na fala na yàlla li muy wax bu dañ jigéen boo génnee dangay ngay protégé wu ba pare yàlla daf lay protégé te dina la dimbale ba kenn du la lor soo taxawee ci biir sax ñu ne la kaay toog ay mag dañuy jug di la xajal ndax lan garanti bi ñu yàlla jox lii mooy tax ñu xàmme leen ne ay jigéenu jullit ngeen waaye kenn du leen lor yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne ah kon nag jigéen ñi yàlla indi na teraanga de dootu leen génn ñu leen di jaay dootu leen futteeku ñuy xool seen yaram da ngeen koy dencal seen borom kër ku joxewul xaalis can doo xool du xool sa taar du xool sa forme du xool ni la yàlla binde loolu mooy teraanga teraanga boobu la ñu islaam jax tey nag am na jigéen ñoo xam ni wàcc nañ seen ànd dellu fa leen islam fekkoon ñàkk fayda ba nga xam ni seeni taar ñu ngi koy génne ci mbedd mi góoru jàmbur di ko gis maquillage ba mel ni rab teg xef yu gudd muy lu xaraam teg we yu gudd muy lu xaraam def sa greffage ba mu wàcc fii muy lu xaraam génne sa yaram naaj bi di ko di ko jam muy lu haram. ba pare loolu yëpp boobu leen li mu xaraamee yaa ngi koy wan góoru jàmbur yi te joxuñu si yow dërëm ba pare yaa ngi eh, sa bopp ci danger ndax nee jigen jigéen buy génn ci biti te protégé wul naaj bi diko lak ci yaramam da fay bëri ay feebar da fay gawa am cancer de peau kon kuy muru rek yàlla man la protéger ci loolu man la ar ci loolu docteur yi dañuy wax ni néew na jigéen boo xam ne dafay muuru buy génn ci jant bi ñom sax duñu ay julit mais dañ nan ngay protéger wu ci jant bi yenn mettitu bop yi metti yi du la dal waye cancer de peau doo ko am zalika adna ay yu'rafna fala yuzayna ni mu tëralee ni islaam tëralee jigéen ba xottil ko col gi nga xam ne moom la war a sol muy col colug islaam col googu nga xam ne daf koy protéger si bëtu jàmbur yi waaye daf koy protéger ci feebar yi nga xam ne mën na koo dal ci mbedd mi su ko su soloowul noonu waaye daf koy protéger si bët yi léeg-léeg nga gis jigéen ni muy soloo bët rek mën na ko jàpp te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu al aynu xaqun bët dëgg la sol solu goo xamante ne nii gu yéeme la génn lépp luy sa taar di dox ci mbedd mi doo faale dara nee naa lépp lu jigéen doon nëbb tey boo bëggee gis loolu yow jig yow ku góor ki bu la neexee nga toog ci mbedd mi nga am soxna di ko xam nga ñàkk am soxna di nga ko xam islaam nag teral gim ñu teral def nañu bu ngeen di génn protéger wu leen ci bëtu jàmbur yi loolu moo gën a yell ñu xàmme leen toujours damay wax ni jigéenu jullit da nga ko war a xool rek xam ni kii jigéenu jullit la tey ñun suñu société ni ñuy dundee <clears throat> bu dee ci aada nii mënoo xàmme kii jullit la wala du jullit ñun ak ñu dul ñu dul jullit ñoo yem ni ñuy solo bu ñu neexee garam boog musóor tey baas marinière bal sax da ngay gis jullit ñoo xam ne ñi dul jullit ñoo leen gën a yiw ñoo leen gën a yiw ni ñuy solo pantalon chemise dem na sax ba si ñuy muuru am na si ñoo xam ni dañuy sol col goo xam ne da nga naan kii est ce que la est ce dafa jël gi rek ko ci kawam. te islam daf ñoo teral nañu bu ñu gën fu tëyti man dama naan fi jaahiliyaa eggoon tey jii so suñu société ni ni islam terale woon egg nañ ci ñàkk a teral jigéen ba passé fi jaahiliyaa yi eggoon ndax tey affaire dafa gën a publicitaire gis si mbedd mi photo jigéen nga ciy gis damaa choqué wu bi ma njëkkee gis benn jigéen boo xam ni benn serviette la la la tënjoo fii bi di feeñ serviette bi bu agsiwul ci oom yi mu taxaw ñu ne ko daaji si panneau publicitaire yi ngay jàkkaarloog moom ma ne kii waxuma la sax ragal yàlla waaye ragal bët sax ku ragal bët sax waroo def lii bu ñuy publicité jigéen ñi la ñuy jël léegi dañ leen di futti comme niñ leen futtaan niñ leen daan futtee bu njëkk di leen defloo ay miis bu njëkk xale yi lañ daan defloo miis ñi ñu xale yi jeex taay fii nii di leen futti ñuy wëndeelu léegi dañoo dem ba dañ naan la Miss Jongama diriyànke yi maire yi ñu nekk ñoo xam ni ndeysaan du ñu xalaat ne bis dina ñëw ñoom jigéen ñooñu islaam tereloon bis dina ñëw ñu sang leen sàng leen muur leen delloo seen borom kër jigéen ñetti muraay la am boo juddoo dañ lay muur sàng la du ñu door laa tudd imaam bi door laa tudd sooy sëy ñu jël firu rabal lu mu diisee muur la fekk islaam santoon na la yow boo xasee ba majeur nga muur sa yaram suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba asma u ñëwee taxaw ci wetam sol yëre yoo xam ne dafa oyof daf ne ko yow asma jigéen de bu xasee ba majoor ba gis règle daganatul muy sol lii warul oyof warul gàtt warul xat warul yaraax warul xeeñ parfum booy génn boo waxee ñu ne ko di ngeen nëpp am na soxna su ma ko doon wax dafa dafa laaj dafa ñëw muy tollu fee nga gis xetu parfum bi di xeeñ di la xeeñ ma ne ko islaam dafa tere lii mu ne kon la ñuy def ma ne ko sangu ba set saabu njàmpe ut sa déodorant boo xam ne amul xet nga def say poqotaan boo nekkee sa kër nag parfum bu dul bu jinne bu la neexee nga laal mu xeeñ sa borom kër ma ne ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na du samay wax de jigen bu lal parfum parfum bu xey bu attirer mu génn góor ñi di xeeñtu ci xet gogo koku zaniya la kat la te lolu jigen ñu bari xamuñu ko sama classe gi mom dañuy ah man duma lal parfum waaye da ngay jël yére ba suur ko suur suur da ngay ay kilomètre ngay ki xet gi di ñëw pour lan xet gogo ngay won góor ñi pour lan la yére bi man na set man na rafet waye du am xet go xamne day attirer góor ñi amna xamne amna dafa am ño xamne Euh, góor yoo xam ne li yàlla wax fi qulubihim marad dañoo am feebar xet gu neex bu ñu gisee jigéen bu am xet bu neex rek loolu mën naa yëngal seen saxaw ndax yàlla moo bindee noonu doomu aadama loolu lépp yàlla daf ñu ko tere daf ñu ko aaye ndax lan buggul góor di bànneexu si ñun te joxul su te joxewul si ñun xaalis yàlla daf ñoo teral ba nga xam ne buggul góoru jàmbur di bànneexu si ñun jigéen te deful bii ndax jigéen bala nga ko takk da ngay joxe xaalis mu ne boo génnee sax bokk ni ci liñu protéger bul nek fofu di waxtaan waxtaan bu neex di xàqataay légui rek koku xolam jéng jëm ci yow fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad amul ful ak fayda ndax yow valeur nga jigéen dafa nek ko xamne yàlla dafa ko tek fu kawe mu nek ko am valeur mo raw or kenn si ñun du jël oram diko sànni ci biti wala mu kay tek ci ci coiffeuse bi nonu sans lax sans denc yàlla nag loolu la bëggee jigéen loolu la ko sàmmee loolu la ko protégé moo tax mun ne nañu protégé wu bu ñuy génn balaa kenn jot ci ñun da ngay fay da ngay joxe nee naa leen bu njëkk amul loolu yow da ngay soxla jigéen rek dem ni papaam damaa bëgg nga jox ma sa doom ma jox la sama doom jeex na amul can amul dara yàlla ne déedéet protégé wu leen ba góor du bànneexu ci yéen balaa kenn jot ci yéen na joxe can wa aatu nisaa ak sadoqaatihinna nihla yàlla mun a jox leen jigéen ñi seen can cat bu amul sëy du am kon yàlla mooy ki tëral jigéen mun nañu bu leen yokk seen karaw parce que yàlla dafa bëgg jigéen bu diñ yàlla moo bind doomu aadama kenn ku nekk ni nga war a mel noonu la la melal amul deret leneen ku nekk ni nga war a mel rek la la melal africain yi ñun lim ñu nattoo karaw yu gàtt loolu la ñu nattoo waaye nañ ko toppatoo nañ ko teral nañ ko defar ndax xam ngeen ni karaw ci taaru jigéen la bokk góor ñi dañoo bëgg karaw lu tax jigéen ñi di jënd ay greffage yu 300000 200000 kan lañ koy wan nga defe ne taar boobu pour ñoom la am na góor ñi ñoo bëgg karaw li Oustaz Cheikh ba yàlla ko yàlla yërëm doon wax mu ne jigéen karaw fowukaay la si jigéen nga war a jël sa bopp yow yàlla daf la teral nga teral sa bopp boobu teral sa karaw jël say produit yu baax yoo xam ne amul danger nga am sa karaw gudd di ko létt ba mu rafet ñii teg greffage ñëpp boo leen laajoon dinañ ni lii de dañ koy def rek ngir bànneexu àdduna waaye àndut ak bu yaram doo mun a sangu set léeg-léeg ndax am na yoo xam ne mënoo koo def tey teppi ko nga ànd ak sa borom kër war a sangu mënoo ko su ko defee ngay faat ay waxtu julli yu juróom te ku ne xam na ni julli duñu ko négocier yow mal xiyaam julli ci biir bàmmeel kenn du ko négocier dañ koy regle bu baaxee rek dangay ngay jàll mooy nekk premier résultat bi ñuy xool si julli bi bu faatoo su baaxul doo jàll te ku jàppul amoo julli ku sanguwul set amoo julli kon greffage yi ñuy teg mu ñuy empêché pour julli waxuma la xaraam gi mu xaraam rek waaye tere laa julli bi muy tere julli te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne laana allahu alwasilata wal mustawsila yàlla rëbb na kiy yokk karawam ak ki kay yokkal léeg-léeg ñu ne waa leen nag leen du yokk <laughs> leen yokk la di am ñoo xam ne ñaa mais greffage fan yi am na ko ma laaj mu ne man de ndax mën naa teg greffage bu ma nekkee sama biir kër sama borom kër di ma xool di kontaan ma ne sa borom kër dafa ñàkk fayda ni la yàlla bindee na na kontaan ci loolu bul àbbi leneen jigéen warul àbbi leneen dem àbbu karaw àbbu ay xef àbbu ay we kër bu am xel àbbu teen teen sax dañ koy àbb loolu borom kër bu am xel sax du la bëggee noonu daf laa war a bëgg ni la yàlla binde loolu moo ko war a kontaan loolu tey ñaata nit ñoo takk ay soxna ci ci ci ci Facebook bi wala ci euh, Snapchat yi wala yooyu bi mu bi mu sëlmoo maquillage bi ba dindi greffage bi teggi xef yi mu ne ay man man lii nekk ci lii laa dugg bëri na góor ñoo xam ne dañuy réccu jigéen moo takk ci maquillage ci greffage ci yu mel noonu bu sumeekoo rek ñaari nga réccu jigéen dafa war a mel naturel ni ko yàlla binde ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذينا اسلام مو نيتري لول تا بوي خول تار بيغا خا مني استدعاي لا موي تار بيغا خا مني كوي اب بن اندو سيك وير بو يرام ني تك خف ني تك خف كو تي خول بوي خول جيجن بوي مور بو بو خا مني تك خف بتم اك بت كوي تك خف دوني موسا نورو بو ني ياغي ديكو داف داغي غيس سين خف يي نجاتون ام داي روس ñu ngay teg am na si ñoo xam ne da ngay xapp-xappal rek parce que affaire daf leen di jàmm parce que plastique la nekkul naturel gis naa koo xam ne ci xewam muy jooy rek di fomp ñu ne ko yow yaa ngi jooy rek bu mu paasee mu ne ma tànt xam nga lu ma doon jooy am xef yi ma doon dugg sama biir bët yi mais du jooy damaa sonn wéy yi ñuy teg wéy yi boo koy teg bu yàggee lii wër sa baaraam bi day feebar parce que nekkul loo xam ne naturel la bu yàggee lii wër sa baaraam bi dafay feebar dafay nekk loo xam ne day day am ay weex weex yu ci nekk yoo xam ni feebar la lay jural bu yàggee weewu weewu original bi nga amoon dootoo ko am parce que dafa am lu ciy melax lu nekk ci kaw booy teg wee bu yàggee loolu daf koy dindi col bi koy bi koy colee muy demee ko tim daf koy dindi mbokk yi loolu jaru ko te li ma gën a jaaxal mooy li ñu taar taar taar lu ñu taar taarlu bis bu ñu faatoo rek yooyu yëpp fee lay tege lu yëre yi rafet rafet lu mu riche riche lu or bi bari bari loo jékki jékki jékk soo faatoo ñu simmi lépp teg fee kon yow melal rek ni la yàlla binde yàlla moo ñu teral ñun jigéen teraanga boobu ngal la nañ ko continuer nañ ko santee borom bi subhanahu wa taala xam ne teraanga gënu koo màgg